loolu taxul ñu war di manipuler wala di nelawal xelu nit ñi wala di wax loo xam ne vraiment méngoowul ak dëgg xam nga dëgg la yàlla bëgg donc comme yàlla dëgg la bëgg donc nañuy wax rek dëgg donc dama bëgg sénégalais yi ngeen xam ne euh, li président Ousmane Sonko wax te nag pour muy leer Ousmane Sonko waxul kenn ne nañu toog ci dëkk bi def lu ñu neex te bu ñu topp kenn waxul loolu mais dafa ne bu ñu politiser mbir. xam nga tey ne man lan mooy sama programme mooy Sénégal dafa am ay gan sama programme mooy dama bëgg a génne kooku daanaka Donald Trump mi gën a garaaw sax waxul loolu Donald Trump dafa ne let's make America great again maanaam nañu def Amérique mu great ci business maanaam ci liggéey koom-koom maanaam ci étranger ci euh, diggante réew ak réew dëgëral suñu armée maanaam Donald Trump yooyu yëpp la lim waaye suñu copain Tahirou Sarr moom neena benn programme la am programme bi mooy guinéen man dama ragal ndax waa ji dafa amoon jabaru guinéen jabar ji bàyyi ko man loolu laa ragal dama ragal ne dafa takkoon benn gelu guinéen gel bi bàyyi ko man loolu laa ragal quoi parce que gëw ma ne man ngaa bañee ni ay nit tout simplement parce que da nga yaakaar ne dañoo bari ci réew parce que man am na ay xaritu guinéen comme ni ko président Ousmane Sonko di waxee am na ay xaritu malien am ay xaritu nangam am ay xaritu nangam parce que bu leen fàtte ne Afrique ñun ñëpp benn réew la ñu woon xam nga li ñu amoon mooy empire du Mali bi empire du Mandeng ak yooyu empire du Ghana on avait ça mais on était tous un grand pays des grands empires ak yooyu donc euh, on est les mêmes personnes boo xoolee ñun ñoo xaw a niiroo sax donte nag dañ ko war a teg ci yoon ndax nit mënul jóg rek ci réewam ñëw di di di kaka ci ay marché loolu du guinéen yi waaye gis nañ yeneen réew yi koy def xam nga toog ci ay koñ di fa def ay njaaxum waaye loolu gis ngeen ne état bi jël na ci ay responsabilité donc suñu frère Tahirou Sarr on te connaît xam nga ñun nag programme la ñu soxla nga indil ñu waaye ay attaque kii ay wax lu ñaaw kii xam nga taluñu la taluñu la motax man nekkuma sax di waxagum ci yow ndax taluñu la quoi vraiment tu es notre frère duñ la saga, duñ la khas mais il faut respecter le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui a tout donné pour ce pays donc koku yow amulo pour ñew di ko wax yenn kaddu yi surtout mom waxula la dara mom dafa wax li nga xam moy deug il a donné les statistiques qui sont sur document comprendre nga dafa wax li nga xamné mo nek ci kayit parce que état nak kayit lay liggéeyee état liñ ko jox loolu la mëna a ba mu dem saytu ba gis lenen lu wuteeg ak limu gis liñ ko jox donc comme audité guñu dafa guñu lepp lo xamné war nañ ko def ci li nga xamné mom moy euh euh compte doomu aadama yi damay faté toujours le mot en français hein parce que Sénégal dañu wara a def lepp lu ñuy def vraiment pour dajalewaat suñu population bi yëpp xam le vrai nombre des citoyens sénégalais xam le vrai nombre des immigrés xam le vrai nombre xam nga des votants et des non votants loolu yëpp dañ ko war a xam waaye loolu incha allahu rabbi gëm ne ci fan yii di ñëw bu élection yi passé rek Sénégal dina ci dellusiwaat waaye li am importance euh, na doomu sénégalais yi am lo xam ne dañ koy xam nañu am raison garder bailen leen ngeen ay patriote naan man damay wote kii laa gëm waaye kii laay woteel déedéet bàyyi leen caaxaan yooyu bàyyi leen tappalekat yu bari yii di ñëw naan leen maak parti bi ñoo ànd voteel ma bàyyi leen caaxaan yooyu voteel leen parti bi nga xam ne moom ngeen gëm parti bi nga xam ne moom mooy changer Sénégal parti bi nga xam ne moom moo bëgg Sénégal te tegu ko ci benn par parlo dama ne yi laay wax leen recense recensement ah recensement le tout Madame recenser les sénégalais hein? li ma doon wax léegi ci recensement la tout. recenser mooy compter doomu sénégalais yëpp xam ñaata lañu recenser étrangers recenser ñëpp ñëpp ñëpp ba xam lépp comprendre nga le vrai nombre Ousmane Sonko nombre bi mu yor moom la ñoom Macky Sall defoon ci recensement mon lañ ko jox te liñ la jox. en tant que état ci loolu rek nga mën a wax état du tâtonner le président Ousmane Sonko mënul buy wax tey mu naan yaakaar naa foog naa déedéet day ne état bi lii mooy nombre bi ak lii mooy nombre bi nga xam ne ñooy voté ak lii mooy nombre bi dul voté Ousmane Sonko noonu la man a waxee donc loolu moo tax ngeen di dégg lu bare bare bare bare bu ñuy wax ñuy waxee noonu mu ne mais Tunkara quel est le problème avec Mbaye Ndiaye C'est vu un changement radical ah, Euh, quel est le problème avec Mbaye Ndiaye lequel le même Mbaye que je connais l'ancien voilà donc loolu xaw ci lu en tout cas ce que je peux vous dire moi, Inch'Allah, si nous nous une majorité écrasante l'Assemblée nationale waxuma pas koy va voter, encore une fois waxuma kenn votelal kii bul votel kii dugalal kii bul dugal kele waxuma ko damay bañ rek xam nga ni ngeen di def noonu nit yàq sama der ne Tunkara moo ne voilà moo doon campagne jouru sàngam campagne ma non no non euh, mu ne attention au Fouta pour les élections dafa am loo xam ne dama leen koy leera leeralal te loolu bëgg naa ko wax sama mbokk pël yi si baame fulɓe voilà ota naate ko ngannda wona minen noon un sénégalais oto naate ko ganduɗa oto neɗɗo naɓu on e votugol kon duwaka votude e kaydi nde ndi on jeeya si tawi noon on tigui no mari kaydi no wawi votude yo yahu vota kono si tawi tan on tigui kaydi mo mo jogui wona kanko jeeyi walla wona ɗon o jeeya si o yahi votugol ɗon ɓe mbayi koyeɓe gagnay voilà loolu il faut nguen mbayi ko hel état bi ak euh, citoyen sénégalais yi dootuñu bàyyeeti benn nit buy jóge feneen di ñëw voté foo xam ne dëkkoo fa loolu boo ko defee xale yi dinañ la gaañ dinga am problème te sa sa vie dina compliqué ndax xam naa ne ku jóge Fuuta wala yeneen ku jóge ay Mauritanie te bokkuloo ci seen te doo sénégalais ngay jéem a jéggi ay frontière ak yooyu di def affaire Farba Ngom yooyu affaire Xarfa Xuufa yooyu di nga dugal sa bopp ci masiba naaru laay boo xam ne di nga ci bëgg a génn mu tëla donc faites attention à ça voilà donc loolu moom nekatul débat mais li am importance may ñaanat ñep rek di remercier wat ñep di len ñaan inshallah rabbi ngeen dem voter ñu voter ñu am victoire bi nga xamne mom lañu bëgg inshallah rabbi ci ni mu gëm gëna gaawé voilà donc gaay yi ma ngi len di santat di len gërëm buma faté dara nak ngeen jéggel mako xamna ci kanam peut-être man na ñëwaat du ñak ma def quelques vidéos